alors ñu bàyyi Kajoor ah, mu intervenir Kajoor. en fait li ma li ma bëgg a wax rek mooy euh, li ngeen di revendiquer nii euh, tey vous allez euh, pour enfin am convoqué ngeen presse. Mhm. à part ça yéen à part bon porte presse bi wax ak presse yooyu. yan yan yan yan jéego moom ngeen bëgg a am ak ndax yaakaar ngeen ne di ngeen am le soutien de la population. vu la posture que vous avez eue pendant tout ce temps-là. non xam nga li ma la wax ci posture moom laa lay wax nee naa la ñun amuñ defar ak yàq ci feuille de route bi nga xam ni kilifa politique mooy indiwaat beneen politique ci kaw RTS ñun amuñ ciy defar ak yàq c'est-à-dire ñun ay exécutants lañ c'est-à-dire que on est des nga ñun commande publique bi nga def rek ñun ci loolu la ñuy dox. donc boo ñu meree ci loolu c'est parce que yow xamoo luy service public. Mm-hmm. parce que muy yow tey jii nii tey tey jii nii yow yow mii. est-ce que nit ki mën ngaa jékki-jékki rek nga ni non non daggal émission bi émission bi léegi léegi nii laa koy tuddee fii laa koy def te nii laa koy defee amoo ci sañ-sañ. Mm-hmm, mm-hmm. da nga waxtaan ak ay nit ngeen weccoo ci ay xaata yooyu ñun li ñu am yaakaar mooy euh, comme ni mu defoon bi mu ñëwee woon na ñu nekk ci RTS yëpp ñu waxtaan ku nekk joxe sa xalaat ci liggéey bi ñun loolu lañu yaakaar ni. loolu la ñuy koy tàllal loxo di ko wax ni mm-hmm. na ñëw ñu waxtaan mbir mi newul ti di uti opinion opinion euh, clameur publique moom moo ñu ko gën a bénéficier wu parce que dafa bokk ci eh, lu bees. su fekkente ne il reçoit des ordres ci kaw kay. non ordre yooyu waxtaan mën na moom laa leen ne la expédition punitive. lañu bëgg expliquer Ousmane Sonko. pourquoi ñu jàpp ne expédition punitive la. parce que tey noo dégg la yaa ngi wax tout à l'heure ne que moom dafa. moom nga entamé d'ailleurs sa discussion ni que dañuy ñëw yow déjà yaa ngi comme un politique dañ la koy nangul parce que sa opinion la mm-hmm. mais moom il se dit journaliste mm-hmm. de formation mu ñëw ñu teg ko seen kaw mm-hmm. décision yi mu jël muy ay ay muy rapport euh, contrat maanaam accord boo xam ne moment biñ ko signé waruñu ko woon signé mu ñëw dindi ko y rien de plus normal parce que kuy dem yow fan nga teg ni moment dafay dem wàcc na. ba pare non non fa nekk pendant plus de dix ans. mayoo leen ko ko loolu moom. non parce que s'il avait l'intention de vous de vous de vous assister. boobu ma wax la. dañu wax non déglu ma wax la wax la. déedéet xam lu bari ngay wax. Hmm. waaye xamoo lu bari. donc wax day leer. xamoo lu bari. en tout cas beaucoup de beaucoup de beaucoup de d'agents. ne sont pas contents de de l'ancienne gestion. donc aujourd'hui su ñu ñëwee di defaraat. dina am ñuy metti ñu ñuy metti parce que peut-être yéen ba muy neex. tout allait bien. non non non pas piqué mot les autres étaient dans la souffrance. c'est ça alors léegi nag dañ nga nga intervenir xëy na Kajoor loolu lay position mais joxal ay éclaircissement par rapport à ça. c'est une opinion mais comme li nga wax ni nangul naa la ko. peut-être euh, peut-être euh, loolu sa sa kii la sa mbir la daal waaw mais loolu. dama la koy léegi